waa kay jërëjëf euh, Abdou Khadre ñu ngi nuyu waa KS TV di leen euh, gërëm di leen sant ci déplacement bi di leen encouragé ci liggéey bi ngeen def liggéey bu rafet bi ngeen def di contribuer euh, ci développement Sénégal ak le débat public donc di nuyu waa Sénégal yëpp plus particulièrement waa Guédiawaye parce que Guédiawaye bi nga xam ne ci laa bokk nekk aussi coordinateur de la commune de Médina Gounass donc ñu ngi nuyu tous les militants et sympathisants de Pastef Médina Gounass waaw apréciation bi ñu def ci gouvernement bi mooy dal xel parce que dafa amoon loo xam ne dañ ko diggale woon ak sénégalais yi mooy nit nañu def rupture rupture systémique maanaam pléthore de ministres yi nga xam ne danañ ko gis fii ci Sénégal la waxoon Sénégal yi bu ñu ñëwee nañ ko dindi benn bi mooy waxoon nañ buñ ñu ñëwee dinañ def jiital compétence bu jiitalee compétence ba pare ñu teg ay critère maintenant de probité morale maanaam nit ki xam-xam baax na naam waaye aussi ñu xool ay jikko ak ay qualité ak parcours am door ko mën a dénk loo xam ne dinañ wóor ni dañ ko mën a doxal kon yaakaar naa ne impression bi ñu am ci gouvernement de vingt cinq ministres mooy lu dul c'est rassurant et dafa dëppook li nga xam ne moom la ñu waxoon Sénégalais fukk eh, ñaar fukki ak juróom ministre yi ñu tabb yépp koo ci jël benn par benn càmbar ko ci xam natt ko ci xam-xam di nga xam ne li ko jox àttan na ko soo ko nattee ci parcours di nga xam ne kii kat am na expérience par rapport ak domaine bi ñu ko bi ñu ko jox soo ko xoolee ci ay jikko aussi ak ay valeur aussi di nga ko fekkee mu làmboog jikko yi nga xam ne ni yaakaar nañ bu ñu àndeek ñoom def cette équipe là dañuy yóbbu Sénégal fi nga xam ne ni moom lañ dig Sénégalais vingt cinq ministres vingt cinq ministres wala trente ministres. waaw vingt cinq ministres avec portefeuille lañ def maintenant cinq secrétaires d' état lañ ci lañ ci dolli mu nekk trente mais ministères yi nga xam ne dañoo am ay portefeuille ministériels avec des budgets yi nga xam ne dañ ko war a exécuter c' est un nombre de vingt cinq maintenant ak ay secrétaires d' état yoo xam nekk ni c' est des ministres attachés à ces à certains ministères quoi. d' accord euh, ñu def un mois gouvernement bi. Mm-hmm. ñu commencé gis ay critiques. Mm-hmm. naka ngay jàngatee loolu. waaw damay jàpp ni euh, critique ñag ñan ñooy critique ak lu ñuy critiquer critiquer loolu aussi dafa dafa jar ñu xam ñan ñooy critiquer ak lan la ñuy critiquer du yëkkati ay coow rek pour yëkkati pour yëkkati coow nañ ñu wax concretement lan la ñuy reprocher par rapport ak ñun bi ñu ñëwee ak léegi comme ni nga ko waxee rek moins deux mois wala un mois à un mois kon yaakaar naa ne nit ki bu ñu ko joxee réew lu toll ni réew ak maanaam importance bi mu am ñu xam ne ñun on bi ñëwee d'abord li njëkk a def mooy imprégné wu de ce qui s'est passé dans ce pays là te yàlla xam na ni liñ fi fekk maanaam bu ñu ko bés bu ñu ko génnee Sénégal maanaam ñëpp dar seen gémmiñ maanaam fekk nañu une gestion boo xam ne catastrophique ñuy imprégné wu di jël nos marques di jël des mesures aussi des mesures yoo xam ne des mesures très fortes yoo xam ne ku ko gis rek dina xam ne kat ñii kat ñu jëm nii mooy mooy mooy direction bi kon yaakaar naa nañu sénégalais yi wax ñan ñooy nekk di critiquer est-ce que c'est l'opposition est-ce que c'est ñoo xam nekk nii peut-être am na yeneen force yu nekk seen ginnaaw peut-être di leen wax loo wala ñoom ñuy wax seen propre intérêt mais Sénégal yi nga xam ne ñoo ñu wóolu jox ñu 54 pour cent des Sénégalais yaakaar naa benn Sénégalais waxagul wala muy critiquer par rapport aux actes que nous que, que kon yaakaar naa une certaine presse wala ñoo xam nekk ni des lobbies tapis dans l'ombre ñoom ñoo nekk di wax li ñuy wax aussi lépp lu ñu mën a wax concrètement a des réponses à par rapport à ces ces waa coût de la vie chère yaakaar naa ni la aussi il y de la manipilation parce que dañu jàpp ni ñun li ñu yàgg a wax mooy ni mu tant que amuñu souveraineté alimentaire maanaam lépp loo xam ne moom la ñuy jëfandikoo ci euh, produit alimentaire tant que mënuñu ko bay fii transformer ko suñu bopp ça veut dire que nous ne maîtrisons pas les les prix kon yaakaar naa ni di ñu wax ni ñun dañuy wax ne dañuy ñëw rek wàññi. directement euh, les les les prix des denrées de première nécessité loolu aussi ndax Sénégal la wala dugalaat Sénégal ci guute goo xam nekk nii bu ñu fay mun duñ fa mën a génnaat dama jàpp ne sax piège la pour certains parce que dañu bëgg fi mu nekk nii ñu précipitation rek ne dañuy wàññi pour wàññi non non du ñu wàññi pour wàññi. dañuy xool li nga xam nekk nii moo mën a nekk mooy la réalité ñu ne les Sénégalais ah lii kat moom mën nañ ko atténuer pour l'instant li ci des nag mooy il faut que ñëpp xam ni. dañu war a retourner à la terre yaakaar naa ne loolu mooy suñu priorité ak prioritaire suñu suñu programme mooy nii dem wuti bàyyi lu ñuy dundee te yaakaar naa nit ñi ñu commencé di ci poser acte yu wóor yoo xam ne si di concret on a mobilisé le ministère con euh, concernant l'agriculture ak ak ak ak ak l'élevage ak la la pêche ñoom ñëpp ba pare impliquer l'armée pour qu'il y ait transparence et mu dem ci les ayants kon yaakaar naa ne acte fort yooyu ba nga xam ne les engrais et tout ça yi nga xam nekk nii doon na revenir à un paysan ay vingt mille vingt cinq mille engrais te du yegg si loolu yëpp ñu couper ko ni ñu koy couper mooy ni on a instruit par exemple les, le ministre concerné ensuite l'armée on a mobilisé l'armée pour qu'il y ait de transparence ba mu yegg aussi les les les ayants droit yaakaar naa loolu mooy li nga xam ne mooy les actes forts te bu ñu demee nag ba bay loo xam nekk nii fi lañ ko bayee à partir de ñun mën nañu impacter sur les prix yi nga xam nekk nii comme ni ñu ko bëggee donc ñu seeta euh, ñun ñooy xool lan la ñu bëgg ndax dañoo bëgg duggaat ci guuta gi nga xam ne moom la Macky Sall ñëwoon maanaam des solutions conjoncturelles nga ñëw rek ne damay taf yëngal pour dépasser affaire bi alors que dañ ko bëgg a nekk nekk des solutions durables loo xam ne dañ koy dépasser une bonne fois pour toutes nga xam ne la vie moom ça dépendra de nous parce que ñun ñoo koy bàyyi suñu bopp état moom mooy accompagner état mooy encadrer état mooy financer état nag mooy contrôler à partir de ce prix là parce que moom da investir lu lu lu bëree bëri. mais mais kon looy li nit ñi di wax mooy. vidéo boobu ñu gis PM defoon ko. Mhm. mu ne bu bu buñ jëlee nguur gi ci ñaari weer. Mhm. dina wàññi vie bi. non yaakaar naa ne vidéo boobu est-ce que c'est c'est c'est manipulé parce que yaakaar naa am na vidéo boo xam nekk ni avant même PM ñuy jël nguur gi la ko président Ousmane ko waxoon ne ku wax ne da ngay wàññi kii gi te tànk te amoo bàyyeloo sa bopp maanaam nax sa bopp na nax sa bopp weesuwu ko kon léegi dañuy jël une partie loo xam ne dañ koy manipuler ya gaa sax wax ju bees la alors wax ju yàgg dañ koy dagg génn ko ci contexte am duñ lépp bëgg a manipuler l'opinion mais ku xam le président Ousmane Sonko ak Pastef xam ne nous sommes des gens réfléchis des gens yoo xam ne lépp lu ñuy wax dafay fekk ñu lu ñu wóor lu ñu étudier ba xam ne lii ak lii la kon jàpp nañu ne waxuñu ne carrément que ne dañuy ñëw rek wàññi deux mois le coût le coût le coût de la vie déjà yow booy wàññi nooy wàññee jaaykat yi d'abord ñoom ñooy jaay lu ñu def dañuy jëndi ku jëndi est-ce que da ngay jëndi ñëw jaay à jaay jaay perte kon dañu ne processus la li ñuy waxanteeg Sénégal yi mooy wax leen dëgg dëgg yi mooy li nga xam nekk ni xam nañu ne ñi ñu fi jógee bàyyi nañ fi prix yoo xam ne c'est insupportable ñu fexe nuñ ko atténuer à la di possible sans pour autant aussi précipiter wala def loo xam nekk ni ça va nous rattraper plus plus tard parallèlement nag ñu door a investir sur l'agriculture pour que dans un an ñu mën a maîtriser nos prix parce que boobaa ñun ñoo koy bàyyi bàyyil suñu bopp yaakaar naa ci loolu lañ mës wax képp ku génne benn vidéo boo xam nekk ni intégralement président Sonko wax ci buy wax aussi lu raisonnable lay wax loo xam ne c'est faisable lay wax te yaakaar naa ne il avait parlé dans ce sens et non de dire que à deux mois nga ñëw wàññi par exemple euh, le les prix de des denrées de première nécessité quoi. léegi ñu ñëw ci nomination yi. Mhm. leen ci mhm. ci appel à candidature bi. Mhm. parce que ñi leen ci interpellé bëri na te loolu ngeen waxoon sénégalais yi tamit mais gisuñu loolu. xam nga sénégalais yi sénégalais yi du ñu liir. wala dañuy waxandoo rek dañuy dégg leen di ko nettali. ñun li ñuy bañ ko li ñu proposé les sénégalais du lu ñu wax rek dañ ko bind. yaa voici le projet de PASTEF axe bu ci nekk ñu ne lii ak lii ak lii la ñuy def on avait dit que ne dinañ def appel à candidature sur certains postes te yaakaar naa ni. si mais met le cadre juridique bi nga xam ne mooy permettre ñu institutionnaliser ne que ah tel poste tel poste de responsabilité désormais kenn du ko joxeti comme ça mais dañuy def appel à candidature mais li ñu fi fekk mooy lan dañ fi fekk ay euh, loi yoo xam ne que ni c'est le président ki nomme maintenant plus de mille postes kon tey tamit mënoo ñëw rek nga ne da ngay ñëw institutionnaliser loo xam ne jaaragul par exemple par voie par par par voie normale beneen bi mooy appel à candidature sur certains postes loolu bala ñu koy def dañu koy institutionnaliser bu ñu koy institutionnaliser mooy dañuy dem jaarale ko assemblée wax ne tel poste et tel poste stratégique à partir de tel date képp ku ñu koy nommer dañuy def appel à candidature mais pour l' instant est ce que dañuy ñëw jël réew mi rek toog fi mu nekk nii le le premier ministre demagul sax def déclaration de politique générale au niveau de au niveau euh, de l' assemblée à peine un mois la la leen defagum maintenant est ce que duñu jël ay nit ñoo xam ne dañu leen doon nommé ci ay postes de responsabilité pour ñu mën a doxalagum en attendant ñu am tous les leviers maintenant pour pouvoir gouverner correct correctement wala dañuy xaar ne dañuy appel à te amul benn institution boo xam ne moo teg ne kat bu ñu ñëwee appel à ni la ñu defee noonu li ñu fi fekk même si elle mauvaise on va l' en attendant de de de changer cela donc yaakaar naa c' est que li président war a nommer asaka ji asaka wàll sax da nommé guñ ko je t'ai dit que ici mën na nommer plus de 4000 postes yoo xam ne président moom moo koy nommer ci suñu régime présidentiel fort bi ñu am bi ñu am actuellement est loolu da ngay ñëw rek sa sa coobare bopp ak sa volonté nga ne dama koy dama koy changer déedéet dafa am ay loi ak ay institutions yu war a teg ba nga xam ne ñu ne nii désormais nii lay demee à partir ñu dem ci ñu ñu jëm ci loolu. mais est-ce appel à candidature du risque. après ngeen def si euh, bu ngeen désigné ni tel post tel post la léegi post yooyu bu fekkee ki ko jël seen opposant la wala seen noonu la. loolu non c'est-à-dire du demee noonu c'est-à-dire que dañu ne appel à candidature c'est encadré. dañu ne bu ñu nee appel à candidature dañu a à beaucoup de Sénégalais de pouvoir postuler ci benn poste bu leen arrangé mais bu ñu ñëwee bu ñu jëlee les candidats on va faire le tri bu ñu defee le tri à partir de euh, du moment ku def nañ tri ba mu des deux wala trois personnes maintenant le président dafa am euh, pouvoir de de choisir maintenant bu fekkee ne ñun dañu jàpp ne compétence yi ñuy wax yëpp am nañ leen mais dinañu yaatal bu ñu gisee beneen compétence boo xam ne que ni bu boobaa wóor nañu ne kat ñii li ñuy seet lépp mi ngi ci kii ñu gis ne kii suñu partisan la te am na les mêmes compétences am nañ confiance am bon dans ce cas moom lañ koy moom la ñuy moom la ñuy favoriser donc ce n'est ce serait que formalité mais à partir de ce aussi dañ koy jox ki nga xam ne moo bokk si ñun remplir les critères yi nga xam ne moom la ñuy wut ba pare ñu am confiance ci moom parce que xam ne kii il croit au projet après bu ñu ko joxee dinañ ko mën a doxal moo gën aussi nga jël koo xam ne peut-être xamul projet ko woon dafa ñëw rek pour pour pour travailler. d'accord nomination yi yéexul. bon yéexul bon man pour man yéexul parce que tamit affaire yi du précipitation c'est di sérieux képp koy nommé war nga mën a xool fi nga koy nommé ak moom waxtaan ceeg moom mu jox la CVM nga xool ko xool parcours am def enquête de moralité ba nga xam nekk ni loo ngi koy jox yow du am jumte moo tax aussi je pense que ni ñi ngi def ndànk-ndànk on avance lentement mais sûrement man waxuma sax on avance lentement mais un mois imaginez c'est-à-dire que ban pression bi ñu bëgg a créer wala débat bi ñu bëgg créer alors que c'est comme si les ah, gens ont fait six mois wala mais <laughs> au moins xanaa boo déggee ñu ne boo déggee ñu ne sax euh, le euh, le premier ministre am na trois mois mhm. pour faire sa déclaration de politique générale mhm. ça veut dire que affaire yi du du ngay ñëw dafa am loo xam ne da ngay ñëw imprégné ñëw ba pare bind wax préparé loo xam ne moom ngay jox sénégalais d'autant plus que dañu fekk tey jii un budget qui a été déjà voté par le régime sort par le régime sortant kon ñun on est obligé de réajuster adapté par rapport ak suñu vision bi nga xam ne moom lañ bëgg a moom lañ bëgg a dérouler parce que le coup est déjà parti ils ont déjà voté le, budget defoon nañ seen orientation budgétaire ba pare léegi nii da ngay dem booy dem assemblée da nga a am loi de loi de finance rectificative ngay def ak yooyu à de ce moment kon yaakaar na affaire yi ni ñu ko yaakaaree gaawul noonu état aussi du du loo xam ne rek da ngay ñëw rek c'est de la planification les gens ont planifié un budget 2024 qu'ils ont déjà voté ñun ñu war ko ajuster et arrosé ko maintenant à notre vision ça veut dire du du du loo xam ne précipitation lay doon pour pour pour man ko. est-ce que du ni ngeen opposé wu moo xaw a métti wala tamit da ngeen gëmloo sénégalais yi nii da ngeen yor benn genre baguette magique moo tax ñu xaw leen teg pression bi. ci un mois il faut aussi ñu def distinction bi yan est-ce que sénégalais sénégalais yi nga xam ne ñoo ñu fal. Mhm. je pense que ils ont toujours confiance en en nous te ñoom ils nous disent que ne le temps qu'il faut. l'essentiel li ñu bëgg mooy Sénégal na tegu ci raay yi ñi nga xam ne nag ñooy wax dama bëgg ñu seet nga may jox sax exemple diw moo wax ñu xam ne kii est-ce que kan la moom moom moo wax ban population. mais ñiy wax ay sénégalais mais ay sénégalais lañ mais ban séné ban ban ban ban sénégalais. parce que xam nga fii gis nañ fii gis nañ fii xam nga xam nga xam nga les régimes précédents xam nga lu mu amoon. régime bu nekk ak sa sa say say homme de presse. résine bu nekk da ngay jël say say say kii teg leen ñoo xam ne ñoom ñoo lay waxal même les multinationales da ngay yaakaar dañu bàyyi dañu bàyyi réew mi noonu xam nañ ne rupture bi gars yi bëgg a def nii c'est pas de leur intérêt kon ñoom toujours dinañu fexe am ñoo xam ne ñoom ñoo leen di waxal la ñuy wax nag est-ce que njariñu Sénégal la wala seeni intérêt bopp la wala intérêt ñeneen ñu nekk ci ginnaaw la loolu la Sénégal yi comprendre nañ ko kon kenn mun leen manipuler Sénégal ñu ngi jugé sur les actes actes yi ñuy posé ak mesures yu ñu jël te yaakaar naa depuis le début actes yi posé yëpp ak mesures yu ñu jël tous les Sénégalais ont appris ont apprécié même ceux qui parlent pour ne pour pour, pour parler rek xam nañu ne les actes que nous avons posés c'est des actes très très forts te mën nañ ci jël ay actes ay actes ay actes cité ko en en en en en exemple.